danoo toll ci jamono boo xamante ni bii Iblis représentativité am dafa daj fépp à travers le monde waaw fu kenn nekk ndawul Iblis ñaareel la fu ñaar nekk ndawul Iblis ñetteel la hmm. waaw ñi ciy mën a mucc rekk mooy ñi nangu ñi nangul ku tedd ki nangu ko jox seen bopp waaye boo nanguute jox ku tedd ki sa bopp ci jamono jii doo ci mën a mucc waaye bu dee ñu ne dañ ciy mucc lu tax hawazani lahu min asheytaani wa xaadali manaa fexal awtaan moom yàlla yemul ci musal ko ci iblis rek waaye njariñ ñi dëkk yëpp la ko indil moo ko wax ay waxam du deñ kon ñun lu xew lu xew ci nun al hawa lan war a xool wa nafs wal wa dunya lii xew ci ay rayaateeg dëgg la bu ñu reyee nit ca France wala ñu rey fi nit ca Allemagne wala ca Amérique wala feneen day gën a siiw waaye Sénégal gii ak fudul Sénégal ak sous région yi Mali ki Côte d'Ivoire ki Guinée ki yooyu dangay ngay dégg ñuy rey am déet fan yi képp da di dégg ñuy dee am ñuy dee. waaye du ñu ko jox importance pourquoi duñ ko joxe importance ni ñuy joxe importance yeneen dey te dee dee rek yooyu itam nit ñi nañ ci bàyyi xel ñu rey kenn rek ñëpp yi waxte bu ñu reyee fukk kenn du wax lu mat a bàyyi xel la waaye loolu yépp muy tubaaboo muy naaroo muy anglais woo ku mu ci mën a doon nañ leen jàngal kanay Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nañ leen ko jàngal dañ ko jàngagul rek waaye bu ñu ko jàngee rek bu ñu jàng nañ fexe savant yi savant yi savant yi nañu wax savant yi xam kanay ko tedd ki xam ni mu nekk soveur de l'humanité <laughs> hmm? ki ate ki ate ni science la gëm waa kooku ndax dina jàng le Coran na jàng alquran ndax dina xam wa innaka la ala xuluqin azim tagg gi yàlla tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jikko ndax ki ate ndax ki ate dina ko xam lii kat la nañu fexe ba tubaab yi naar yi itam naar yi itam nañu fexe ba ñu xam ni nañu fexe xaj na am nañu ko xam ci ñoom waaye bariwul waaw comme communication xew na savant yi nañu yaatal communication yi nañu laa biire nit ñi nañu laa biire naar yi nañu laa biire Hmm? ndax Serigne Touba irham jami al wara la wax boromam yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa hadin rada waaw alwara moom fas yeeg yi sax ngi ci biir moo tax faw ñu yaatal yërmande ji Serigne Touba du ku ñuy limité fenn le sauveur de l'humanité moo ko wax amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzun nañu yaatal mbiri waaye nag def fii ne àjjana moom def fii àjjana xanaa ci sa xol waaw ku tedd ki baaxee la ko ni ma ko baaxee nga xam ne àjjana ngay dund waaye nag bu dee ci yeneen yi moom nga bëgg lépp doon àjjana ni àjjana jeenu jëm loolu mënut a nekk <laughs> loolu te loolu taxul yàlla indi ñu fii di daf ñu fee indi ba noppi di nattu di nu ay épreuve ak ay balaa di xool ba xam waaw yi mu nii teg lan mooy nekk suñuy réaction ndaamal daaru mu atti de maam Thierno Birahim bu ñu ko diw dafa am doom alhamdulilah lay wax diw dafa faatu mu ne alhamdulilah waaw xamewul naqar ak bànneex ba ko ku tedd ki laajee wax nañ ni ceer Thierno dama bëgg nga wax loo bëgg ma defal la ko mu ne ko lu yàlla dogal mu neex ma <laughs> waaw te nun noo foofu ci moom lan bokk loolu may wax ji mooy royukaay muy